man la Pierre Diatta Sarr nekk coordinateur projet environnement LVIA euh, solo foire bi mu ngi dugg ci projet bi euh, coopération italienne financé pour dimbale entreprise yi nga néew doole ngir ñu mën a soqaleku li tax ñi def ko fii Thiès moo di euh, projet bi mu ngi dow ci diggante Sénégal ak Mali pour wàllu Sénégal mu ngi am ci diggante Tamba ak Kaolack mais dañu jàpp ne LVIA Thiès dafa xarañ ci wàllu gunge jigéen ñi ci wàllu économie vert ci transformation déchets et autres kon ñu ne ñi nekk Kaolack ak ñi nekk Tamba daw si leen ñu ñëw jàng si li waa ca LVIA Thiès di def loolu mooy solo foire bi activité bu mag la ci ci ci projet bi mais comme ni mu ko mën soxna si waxee sànq dafay jeexal ñu wane ku nekk wane li mu mën ku nekk andi li mu man foire buñ ko waxee ndajem jënd ak jaay la waaye ndajem weccee la itamit dinañ tax ba entreprise bu jógee Tamba ñëw fekk si waa Thiès ñu mën a xool naka la ñuy mën a jëflante seen biir ngir seen nekkin mën a gën a baax loolu aussi lu am solo la ci ci ci dund ci dund bi ñu nekk dañuy fexe sax ndax LVIA foofu la xelam gën a màcc naka la ñuy defee ba déchets yi ñuy sànni ñu mën a defaraat suñu toogaay ak environnement bi ñu wër ndax ni environnement di mel ñun ñoo ko teg donc war nañu ñu ñaax nit ñi ci bu baax naka la ñu mën a sàmmee seen bopp alam bi ngir mun a éviter coono bi nga xam ne àdduna mu ngi koy mu ngi koy dajalool loolu tamit solo boobu itamit tax na ba ay groupement jógee fu ne ñoo xool si itamit ci entre ci yi dinga ngeen gis ay entreprise ne daanaka ci loolu la ñu nekk loolu mooy solo liggéey bi teelu ONG dafa am li tax mu jóg te li tax mu jóg ñetti ONG yi loolu la ci secteur boobu ci secteur environnement pour LVIA ci secteur vice ngir dimbalee xale yi tàggat leen di ñu am liggéey ci secteur copie ngir di tàggat itamit xelu nit ñi loolu tamit soxla bu am projet euh, euh, solo la ci projet bi ndax jàng nañ ne nit ñi dañuy daje déedéet pour defar mais itamit pour am euh, espace bu ñu waxtaanee ndax coono yi jigéen ñi di daj ci seen biir kër yi ndax dafa am ay femmes yu nga xam ne ay handicapé lañ ñoomi neen ay jigéen yu ñuy dóor seen kër ay xale yu ñu violé amuñu fenn fuñ ko waxe copie ci wàllu projet boobu loolu lay dox naka lay nekkee un psychologue muy déglu ñooñu ngir defar leen ngir nit ñi pour ñu nekk ensemble il faut ñu tàggat leen naka la war a nekkee ensemble. Euh, financement bi nag soxna si dellu si na man mënu ma jàpp exactement parce que du Sénégal rek ak Sénégal la ak Mali. voilà justement ñu pàcc pàccoo ko ku nekk ci secteur bi nga nekk donc day xaw a jafe pour ma dugg en détail ci programme financement bi. maa ngi tudd Pongi Soumaré jugee région de tey dama teew taxawaay euh, représenté jikke Gabou ku bénéficier ci projet euh, VIS bi euh, mbette ak aussi contentement la ñu gis ci wàllum journée bi parce que nga nga financé nit projet ba pare nga ne danga koy dimbali mu exposé ñëpp gis sa produit am loolu félicitation à VIS la ñuy wax jërëjëfe VIS te di ñaan tamit képp ku ñëw ci foire bi na la sa produit yëpp dox te aussi di ne Vis nañu gën a bàyyi Sénégal xel parce que depuis ñu gis ñoom seen réalisation yëpp taxaw nañ ci te lépp lu ñu diggoon def nañ ci ko te aussi maa ngi ñaax famille nañu gën a góorgóorlu gën a liggéey parce que pour sukkali pays la te ñoom dañoo ñëw pour taxaw jigéen ñi ak ndaw yi te lépp lu ñu def lépp lu ñu wax rek ñu ngi koy def ñun nag Sénégal loolu rek la ñu bëgg. joxuñu xaalis kese bàyyi ñu dañoo jox xaalis tàggat ñu te aussi di ñu accompagner mhm. parce que am na ay projets yoo xamante dañ lay jox xaalis rek bàyyi la mhm. mais ñoom dañ ñoo ñëw jox ñu xaalis jox ñu xam-xam te ci gëstu à chaque fois ci xam-xam yooyu te aussi di ñu permettre tamit ñuy def ay sensibilisation yoo xamante ne ñoo xamante ne bénéficier wuñ ci projet bi mais grâce à VIS tey mën nañ nekk ne bénéficier nañ ci ko ñuy def maraîchage hmm. dañuy def tamit transformation locale saponification en hmm. même temps dañoo taxaw sensibilisation si wàllum xare yi grâce à VIS autorité yëng nañ ko parce que def nañ ay journée de sensibilisation yoo xamante ne da ngay invité autorité yëpp ñu ñëw gis li ngay li ngay liggéey ci wàllum li ñu koy def ak euh, ñoom tamit euh, localité yi ñu ngi ciy veiller bu baax a baax ak setaay bi tamit parce que lépp looy def na set parce que biir kenn du ko raxas te ñoom ñu ngi ciy taxaw bu baax a baax ci wàllum loolu. Fatou Seck Gueye euh, nekk gérante entreprise Green House muy évoluer ci agriculture ak microartisanat wàllum mbay ci table ak transformation les produits locaux. ak euh, tamit euh, mooy épices yi nga xamante ne moom la ñuy defaree à base de nos produits euh, naturels. loolu bi ñu am ci ONG LVIA ak VIS lu am solo la. parce que dañ ne nit boo nekkee si yoon rek buñ la fa fekkee dañ lay yóbbaale te loolu moo ñu dal ak ONG VIS ak LVIA ndax ñoom dañu dañoo ñëw nee nañ bari ko ci mbaartal rek ñoom bu ñu ñëwee bu ñu la fekkee yaa nga ca rek dañ lay pousse àndandoog loolu noonu depuis boobu léegi ñu ngi gis seen seen accompagnement ak waaw ci côté techniquement ndax ñoom ñu ngi ñuy conseil teye ñu ñuy woon fan la ñu mën a teg suñu tànk ba li am tey jii daal di am voilà. waaw li may ñaax sama yeneen ndaw yi mooy mooy que ni euh, nañu gëm nañu jàpp. parce que nit euh, dangay am confiance sa bopp ba pare ndax euh, boo amul confiance sa bopp maîtriser woo loo def te lay def tamit na nga ci am xam-xam ndax xam-xam bi mooy njëkk na nga formé wu na nga mën a samp li nga xamante ne mooy euh, kuréel gi nga nekk surtout tamit da nga ànd ak mbooloo am ensemble avec la famille ñëpp nga xamante ne pare nañ pour jàppale ñooñ boo leen wanee benn bravo ñoom dinañ pare pour àndandoo ak yow pour jàppale lool la ñu war a def gëm ko toog liggéey xam ne liggéey rek mooy fay. Et moi, je suis Chiara Picchio, coordinatrice euh, du secteur d'urgence humanitaire de l'Agence italienne pour la coopération au développement du siège de Dakar. Euh, en fait, euh, le, les, les, projets et donc la aussi qui a, qui a, été réalisée dans le cadre du projet euh, a été financée de, de, dans, le cadre d'une initiative euh, régionale d'urgence humanitaire qui est réalisée par le siège de Dakar de l'Agence italienne pour la coopération au développement. dans le de cette initiative régionale euh, qui euh, inclut le Sénégal et euh, le Mali, d'un budget total de

Euh, les projets qui se sont euh, au Mali se bien passés. en fait réussi à euh, euh atteindre les, les, objectifs même si la, la sécuritaire dans les pays pas n'est pas toujours facile. donc pour ces projets-là, en fait de, de VIS, c'est le projet qui est au Mali et ça va se terminer à début Donc euh, là, on est en train en fait d'évaluer euh, euh, le, les résultats qui sont en train d'être attendus. Dans le cadre de l'initiative euh, de l'agence, euh, la question environnementale, c'était très important. Euh, et aussi, en fait, le secteur de l'environnement, c'est un secteur qui est en train d'être développé toujours plus dans le cadre de, de secteur d'intervention de l'agence. donc, c'est pour ça qu'on on avait considéré que c'était important de, de, de prendre prendre en considération dans, dans les soutiens d'entreprises aussi des entreprises qui étaient vertes. Et donc, il prenait en considération aussi l'agriculture et la transformation agroalimentaire. Moi, je suis Simona Capocasale, représentante de Visso Sénégal et chef de file du projet euh, Femmes, Jeunes, Entrepreneuriat euh, Social, pilier durable. et inclusif. Le projet va bientôt se dans deux mois, plus ou moins, et ce qu'on peut retenir, qu'on a fait beaucoup d'activités pour accompagner des petites entreprises communautaires et dans leur processus de renforcement, formalisation et accès au a accompagné un total de 46 euh, entreprises, 20 au, euh, au Sénégal et 26 Kaolack e Tambacounda mm, au Sénégal et Kayes et Bamako au Mali. Et euh, exactement, vous avez raison, vous avez exactement raison. On est à Thiès pour organiser une des activités de partage et échange entre euh, des entreprises euh, sociales euh, qui travaillent dans l'agroalimentaire et dans la production verte, qui, sont ont été accompagnées par, la, par une des partenaires du projet, les LVA, avec des, des initiatives parallèles, toujours euh, financées par l'agence italienne pour la coopération au développement. Alors on a eu l'idée depuis le début du projet de réaliser dans le cadre du projet cet événement pour faire les rencontrer, pour faire un partage d'expériences, pour faciliter les partenariat entre euh, acteurs des différentes euh, parties du pays et aussi un peu pour présenter les produits de, ces, de cette entreprise qui viennent de euh, Kaolac et Tambacounda, qui sont des régions, euh, des zones zone rurale un peu défavorisée dans ce point bon, Le projet, comme je dis, va finaliser, mais les vis, comme les partenaires qu'ils ont, qu ont travaillé avec nous euh, via Ecopi, euh, vont, ont toute la volonté de continuer dans ce, dans ce secteur d'intervention que c'est pour eux prioritaire. Alors toujours, on va continuer l'accompagnement et le faire avec, euh, euh, en collaboration directe avec les autorités locales qui sont les directes responsables à la fin du tout de leur accompagnement euh, dans leur parcours. Merci. Je suis Elena Gatti, responsable d'Elvia au Sénégal. Eh, Elvia est partenaire de ce projet pour les activités qui se déroulent au Mali. Mais on est aujourd'hui parce que euh, croit que ce soit très important de mettre en synergie toutes nos initiatives d'accompagnement aux entreprises. Donc aujourd'hui, nous, on est en charge de, de l'organisation de cette foire, de cet événement final du projet. Et on a décidé de, de réunir des entreprises, des régions de Kaolac et Tambacounda, mais aussi les entreprises qui nous accompagnent à Thiès. Pour Elvia, l'accompagnement aux entreprises est un des piliers de nos interventions. Donc nous croyons que cette mise en réseau et cette possibilité de partage entre les entreprises que nous accompagnons sur nos différentes interventions est fondamentale. Donc pour nous, cette foire est une occasion très importante de mettre en valeur le travail que nous faisons dans les différentes zones d'intervention et aussi une, une opportunité c'est de, de, de, de, faire connaître les entreprises que nous accompagnons dans le cadre aussi d'initiatives parallèles. Donc ici, il y aura aussi un groupe d'entreprises qui s'active euh, dans l'économie verte et que, que, euh, que, les visiteurs pourront découvrir euh, tout au long de ces deux jours de foire.